jëre ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax euh, di kontaan ci yéen ci jox bopp bi ngeen jox bopp di leen jaajëfal tey nag ñoo ngi fii bi wasaare ci émission bi mag bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo ba tax na tey jàmmaarloo ma ñëw ànd ak ki nga xamante ni nii mooy Thiatou Fora waaye mbokk yi du woon moom kase ndax moom laa bëggoon dajale fii ak ki nga xamante ni mooy Agogo ndax gis naa combat boo xamante ni mu nekk combat boo xamante ni euh, monde làmb bëgg nañ ko bëgg nañ ko moom mi bëgg na ko Agogo tamit bëgg na làmb yooyu ba tax na ñoom ñaar laa bëggoon boole mais temps bee xaw kii Agogo xaw a kii ñu commencé mais maa ak ki nga xamante ni mooy Thiat Fara ma bàyyi ko mu nuyoo ñu ngi wi Thiat Fara nuyu naa la. waaw bisimilah auzu billahi mina seytaani rajim ginnaaw bañ sant yàlla ñu ngi julli jërëjëf bi sant suñu ñaari waajur di sant képp kuy doomu jaamu kër ak foo mën na nekk. Hmm. ñu ngi lay sant bu baax di la nuyu di la jox sa waajuwaay di nuyu tamit sama mbokk xalpulaar yi bandiraɓe xalpulaar goto fof mbiɗa salmina on to mbawɗa wonde foof mbiwo mbiwi mbiyani fof mi salminima mi salmini ɓesgu pulago foof e eh, di leen nuy yéen waa wasaare lamb di nuyu caméraman yi ak demb bi ma àndal affaire yooyu noonu eh, di leen sant di leen gërëm quoi di nuyu Sénégal yëpp di wax waa bisimilah jàmm. mbii mi ko mbiimaani mooy lan. waaw ko mbiimaani mooy nit ku nekk rek am na ethnie boo xam ne foofu nga bokk xam Sénégal yàllaa def mu yaatu façon xeet bu ne mi ngi fi. Mhm. am nañ pël am nañ olof am nañ joola am nañu màndag am nañ soose am nañ tout quoi ku nekk rek fi nga bokk foo nga fësal ko ndax li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaam ñun ay pël lañ ay doomu pël lañ suñu traite traite pël la quoi ragaluñ si dara fuñ dem dañ koy wane dañ koy fësal parce que yàllaa ñu bindee noonu ko di ji fier tamit di sant suñ mbokk yëpp di wax nag waaw mooy loolu naka nga gisee jàmmaarloo parce que euh, des fois dañ fi àndi combat ay ñaar ñoo xamante ni seen combat taxaw na wala ñu andi fi ñaar ñoo xamante nii uh-huh. amateurs yi dañuy dañuy dañuy bëgg seen combat wala ñoom seen mbëri seen bopp dañuy bëgg combat bi gisee jàmmaarloo. oui émission boo xamante ne ñëpp ñu ngi koy suivre ah. émission bu am solo tamit ci làmb que combat yu bari fii lay taxawee combat yi ñuy buñ ko fi waxtaanee yàlla lay def promoteurs yi dañuy am accès pour doxoon ndax promoteurs yi dañuy bëgg tëgg. mbëri dañuy bëgg bëri mais maanaam li gën a yombal làmb yi foofu moom ay démarche mais lii nii moo gën a yomb sa démarche ndax da ngay toog adversaire nga toog nga ne ko boo ma jëlee moo daan la mënoo boole boo ko jëlee mu daan la kon ñame wante am na avance dugg voilà léegi nag bu jàmmaar jàmmaarloowee ku nekk wax jox sa morom promoteur bi bu gisee da koy intéressé te loolu day gën a yomb ci ñaari camp émission bu am solo la gis ngeen émission bu am solo la mais avant tout Thiat Fora turu Thiat Fora fan Thiatou Fora kañ la débuté ci làmb ak lan moo ko dugal ci làmb oui Thiatou Fora mi ngi débuté ci nekk benn ndaw juddoo Fora jàmm gën moo ne jàmm moo wër foofu yëpp tund boobu yëpp hmm. ñu ngi juddoo jàmm gën màggee Fora yaroo Fora fekk suñuy waajur ñu nekk Fora ak suñuy mbokk suñuy mag ak suñuy rakk yee ñu nekk fa saa yi fa nekkoon suba si ba ngoon si jot dañu dem géej ànd ak suñu grand yi ñoom papa si na lañ doon àndal ay fëgg affaire yooyu bu bay maamu lamin sax bëreeguñ mais ñu ànd ak ñoom dem géej buñ demee ñoom Pape Kane ñu fekk leen fa fekk fa ay Siteu ay Omar Mbaye sire Seras Aliou Gaynde dem si yàlla si Pape Mbengue ah ñoo ñëpp ay grand Gana ñoo ñëpp ñu fekk leen fa ñun ñuy téye seen yére léegi ñoom buñ demee di entraîné ji ñun ñuy bëri suñu biir man Elimane Der ak Tafa Kara léegi day defar ay tisat ak Ibou léegi mi ngi ñuy bërënd suñu biir Eh, di foo di foo ci noonu nag ngay nekk ba affaire bi dugg la. ban moment nga sentir ne man mii kat carrément léegi bëre bi bëtt na wala boog am naa doole ba war mën a dugg ci biir làmb. non ñun moom bi ñu di fooyee bëre dañu doon wax yow demal nga bëree ji nga naan bëree bàyyi bëree ñun amuñu doole xamuñu sax loolu bàyyi leen ñuy foo rek mais fur et ngay dem di gis say moroom wala say nawle yi bëri eh, man li gën a indi sama bëre mooy dama ñëw gis ay booy ndaw di bëri mm. moxu maa ngi ko fi nuyu au mm-hmm. mu ñëw ne day tëgg làmb mu tëgg combat Feugueux dë ak Lamine Boulo ñoo waroon na bëre grand combat bi léegi mu ñëw ne daf mooy tëggal combat man ak àmb maa ngi koy jaare tamit suñu mbokk yëpp moom it dafa desete màggalu daawaati jéeg. ambourage di ko ñaana waaye yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mm-hmm. léegi mu tëgg ñu ñun ñaar mais lu neex mooy promoteur bi ñu tëgg bi moom moo may may contact <laughs> te moom moo tëgg làmb day ñëw ma ba doyal dem ñibbi naan ma nag amoo doyal de ma ne ko eh, sa yoon néew si <laughs> yooyu si noonu la ma affaire bi duggee ñu dem bëre ji ma bëre indi fa nag mbooloo bu bëri ak fëgga deux bi si doon bëre waale quoi. léegi mais man damaa bëree rek mbapat bi tas fëgga sa jotu la bëri mbapat bi tas na gaari coow coow yu métti affaire yooyu noonu si noonu nag xam rek ngay gisee. beneen mbooloo di la assister naan la gars mm-hmm. lii ak li ak lii. la pousser eh, loolu moo ñu ci dugal. beneen combat bi ñu bëriwaat bi boobu Fallou Noël maa ngi koy nuyu passage naw fi mi ngi campé naa di nuyu ñi fa nekk ñëpp suñu mbokk yëpp. Mm-hmm. Eh, di leen yàlla borom bi gaañ génne leen ci biti. kon su ma déggee wax ji mooy euh, Thiatou Fora jot naa waaw bu baax deuxième combat bi laa lay indiwaatal man ak moog Brick Plain ñoo waroon bëri ci jour bi mu feebar léegi booy woosi ma ma daa feebar nañ ñëw ñu bëre. man leen ñaar lañ ko fay ñu ne 500 lañ ko fay. 500 lañ fayoon ba waaw léegi fekk moom lekkoon na avance bi ba pare. 250 déedéet ñu jox ko 500 mu lekk avance bi ba pare. <laughs> léegi man ma ñëw bëree mu bëree si mbapat bi ba mu jeex lañ ma joxaat sama 500 ma door a dem ñibbi. avance nañ ko 500 mu des beneen 500 léegi moom mu feebar man ma dem bëree làmb ji. ku maa daan man ak brique plein. ok déggoo. nga jógee ci loolu après commencé sentir ne man mi kat war naa commencé dugg ci mbapat waaw boobu nag nga fay jógee foncé parce que après xam nga rek dañoo dëkk tund boo xamante ne dafa bëri jeunesse dafa bëri ñoo xamante ne surtout ay fora ay jaamu gën nii da gis ay booy bëri ñu topp sa ginnaaw looloo indi ñu lay tëgal ay mbapat dafa demoon sax ba man damaa tëb mbapat damay ñëw ñëpp xam nañu soo bëree ba pare làmb day waaw. da nga gis ay mbëri mag dañuy ñëw naan naa leen nañ ma njëkk bëri man ba pare ñoom ñu ñibbi man a bëri ok affaire si noonu ñu koy dund di ko dund di mbapat di mbapat di mbapat fu ñu bëree mu tas dem ba si biir pour ñu bëree sax problème mais sa diggante yow ak ak mbooloo mi lan la. non loolu. parce que nga ñëw nekk xale mbooloo mi topp la depuis mbapat lan la. Mm-hmm. loolu yàgg la rek xam nga jeunesse moo mel noonu rek liñ naan mag yi bëree. Mm-hmm. seeni rakk ñoo leen doon si supporté seen rakk yooyu noonu bu ci mbër juddoo. Mhm. ñoom ñëpp dañuy tourné toppaat mbër mi ñun dañ doon supporté suñuy mag dem ba si biir ñun ñuy bëre léegi ñun suñu génération bi yëpp xam nga comme boo nekkee nit ak moroomam rek mhm. ci lay gën a jege que nit ak magam si loolu nag gars yi dañ topp ñuy bëre di bëre fu ne tamit di bëre naa fu ne sa premier combat arène kañ la mhm. woon sama bëre boobu tamit sama bë mu géej nu mu demee mooy stade laa dem di seetaan làmb fekk fekk buusita di bëre di bëreeg benn mbër. loolu la. loolu 2017 la xam nga 2000 waaw 2017 la. 2017 nga dugg ci ah. lamb. bëre léegi ma ñëw fekk muy bëre muy bëreeg benn mbër bu nekk Yoff xaw ma Wakaam. Mhm. ma ñëw siraan leen ñu bëri ñu mel ñu nekk ay mbëri ndaw moom bu kooku sax moo daan Bou Siteu. Mhm. léegi ma ne laay lii dafa yomb man maa war a bëri ma ci guddi gi. laa boobu la moo tax dafa yomb da nga xool nga ëpp leen maas ñu sëgg di bëri wala. non damaa xam ne ñun ñëpp ay morom la ñii ñi ngi bëri arène man war naa war a mën a bëri arène foofu rek laa ko wér léegi ma ñibbi si nag ni Siteu man damay bëri arène ma naan ma yow mënoo yem nga naan koy bëreel ma ne ko gis naa sa turandoo bi tey muy bëre bu Siteu affaire yooyu mu ne ma da am licence ma ne ko ma dara si noonu la suite ma déggante kanji messenger du ma ko mës fàtte ma message ma ko gën a doo ma tëggal làmb. <laughs> messenger nga ko envoyé <laughs> message waaw waaw a bëre yu bëri mu ne ma ah affaire am nga licence boobu aw ma sa licence ma ne ko waa am naa licence. mu ne waa baax na léegi indi sama licence naa la dugal ci journée journée journée kii dumbul dumbul ak mambaal la su juumul. Mm-hmm. dumbul ak màmbaal n'est-ce pas bëri nañ su juumul journée boobu laa njëkk a bëri làmb kànji si noonu laa xëyee ni Siteu léegi naka léegi man ma ñëw ni Siteu am naa combat mu ne ma kan moo tëggal ma ne ko kànji mu ne ma sa licence bi nag ma ne ko defar ko ñu toog fu ñu toog mu woo Matar Ndiaye téléphone na caatu foora laa bëgg nga defal ko licence mu ne ko suba na def visite médicale am buy ñëw mu indaale dix mille nañ ko defaral licence. Mhm. si noonu laa demee dem ci màgget directement koy nuyu au passage boobu saison bi tàmbale na bay waaje fin saison laa bëre parce que juillet laa bëre. nga bëgg ci am ci ndam. si noonu laa bëre noonu damaa ñàkk sama premier combat da nga ñàkk ñaata combat def. man bëre naa sept combat. sept combat ñaata victoire. naa quatre victoire. quatre nga daan. man daan daan naa saa xomal daan nëpp daan caatu bu Kër Masar mbooloo. bu mbooloo kan daan. trompeur beneen bi ma daan bu bool. Mhm. safara ak booy boobu doon daw fii ba daan ma rek ardo. ardo ngeen bëree combat bu neex bëree combat bu mais combat yooyu yëpp nga ma limal. ban combat moo la ci gën a neex ban combat nga bëree xam ne tey bëree nga xeex nga ban combat. man amaguma ko sax. combat boo xam bi ma si gën a neex la. bilaay yi ma bëree yëpp sentiruma si benn yoon ne yëg naa ci sama bopp bëre naa nag daan yi ma bëree ñaar. ban combat ci gën a daj entraînement gën cee daj coono ñëw yàlla may la ci ndam. sama combat bi mujj bi li ma si daj ba ma dalee bëre ba tey mosuma ko see daj. la moo tax nga daj ko ci combat bi. parce que da nga bëree da nga benn combat bi euh, ci nga ci daj coono ba ba noppi ñàkk. waaw parce que làmb mooy loo xamante ne ku yokkul da ngaa wàññi. te ku bëgg jëm ci kanam foo nga yow. xëy na esprit parce que ñu ci bàyyi ñoo ñoom xëy na ñoom ñoo gis yokk maas rek mais pour man des na sax ndax li ma bëgg li ma bëgg dëgg-dëgg su ma xamee su may leetoo ci stade bi damay direeku ndax làmb day affaire oyof mbër da ngay diis am doole. parce que boo fi oyofee athlète dañ naan amoo doole. yan coono yan yan coono nga daj ci làmb. Eh, coono yi ma dem nañ fi gàmmi di entraîné ji man si qualify Maama Lamine ah Youssou ak ah, suma juumul ñu ñooñu la Abu Ñaase nekkoon Gambie di entre ànd ak suñ coach su du maa ngi koy nuyoo passage mu teg ñu ay coono yu métti si weeru koor ñuy entraîné deux séances dañuy def musculation def def géej def def géej di contact nekk fa un mois ferme yoo xamante ne mbedd bi sax xamuñu nuñ mel guddi ba guddi la ñuy génn bu ñu entraîné bu ñu ñëwaatee dañuy tëdd nelaw ba guddiwaat Eh, entraînement lu métti mais tamit yàlla moom moom moom ndam. Eh. mais lan moo dugaloon ci ardo lan moo la dugaloon ci ardo parce que gis nañ nekk na ci yoon jóge ci defet après nga ñëwaat jëlaat ko lan moo dugaloon ci ardo dara dañoo bokk yoon rek xam nga mbër moom dafa am mbër yoo xam ne ñoom amateur yi foofu ñu mbëkkante seen biir ñii dem ñii xaar mais làmb la xëy na yàlla def na am na ndam sama kaw man maa ngi séentu leneen. mais lan moo tax nga ne dafa daw ba daan la. non dara loolu parce que ngeen ngeen ngeen bëree ko combat bu métti. nga ngeen xeex loxoom simeeku nga dàq ko da dem ba benn moment dafa mel ni da nga naagu parce que da dem ba benn moment nga ne kii benn loxo la naa ko attaqué jeexal làmb ci est-ce que du loolu mooy yàq sa làmb. non même pas boo déggee daw bi mooy waxu mbër la rek dama koy tooñ rek maa ngi koy encouragé ci ndam bi. Mm-hmm. mais maanaam man bëggeewu ma ko woon nii man bëggoon naa ñu jàmmarloo ba jël la ndax loolu laa indi. Mm-hmm. man indiwu ma moytu ba daan. moom moo indi moytu ba daan maslaa ba daan man reyante ba daan laay mais est nekkul li mu blessé moo tax mu doon daw di mu non blessure moom ah xëy na moom laa engagé parce maa ngi dégg nga naan blessé wul ndax ku blessé du dóor wala du baare waaw parce que gis ngeen di méttit mënul boole ñaar mënoo hmm. boole méttit ak di contrôler mënta nekk xel nanguwul loolu première bi d'accord naa loxoom simmeeku na ku dee ak sa bàmmeel. yaakaar naa ñaata yoon ñaata la ñaari yoon la daaw xam ñetti yoon léegi première bi d'accord naa ku dee ak sa bàmmeel gis naa ko nii mu téye loxo bi wetu. delloo nii delloo ko boobu maa ngi koy gis. mais deuxième bi ak sama akulaay ku dee ak sa bàmmeel. kàggu nu ma ko woon fii. su ma si waree baat yàlla bu ma daanati mbër. deuxième bi taxaw génn téye loxo bi jonkoon lu yàgg téye ko nii jékki dox ñëw bu dee loxo bi dafa si meeg bu mu téye lan moo ko teree delloo ko loxo bi su ma déggee wax ji mooy boobu dafa sonn di saale. no moom loolu gis nañ ko si làmb ji mais nag làmb mooy loo xamante ne la daanee jarul style nekk fii di expliquer parce que après ñiy seetaan duñ la nawloo dañ naan kii diw la kaa daan ba pare. Mhm, moom champion la mais na xam ne kim daan ndaanaan la. te gaynde la daan te mais keroog gis la nga nga lu bari. nga mobiliser lu bari. Mhm. la def. waaw dara parce que boobu bi ngay génn waa jàmm gën foo kenn desul jour boobu. waaw dara da may gëm yàlla rek xam ne man moom ma ndam moom moomu ndam borom bi ñu sàq moom mooy xool ku ko neex mu séddee ko ndam xëy na loolu mooy li gën ci moom man li ma ñàkk li mooy li gën ci man yàlla desal na ma leneen lu dàq loolu parce que ay xale lañ ay ndaw lañ nekk si làmb yaakaar ci làmb pour ñu war ñoo teral lépp lu nit war a def pour am ndam def naa ko bëri naa xeex naa ne naa préparé wu naa li làmb di laaj yëpp def naa ko des fois da ngay làmb da laaj lépp nga jox ko mu war la micro bi ajal micro eh, des fois làmb da koy laaj lépp nga jox ko ba mu mot moom mu njuy la des fois doo ko jox dara mu jox la làmb. waaw loolu de am na. Hmm. mais boobu ak léegi bi nga ci jógee damay dégg say combat yu bari. ñu koy hmm. dox. Hmm. mais combat yi dafay xaw a yéex te man ñi may dégg ñu lay waxal ñëpp say adversaire lan lan moo waral combat xaw a yéex. non combat yi moom yéexewul si ñun parce que ñun ay xale lañ bëre mooy suñu profession. Eh, ni nit nekkee élève di yaakaar pour jàng boobu teddeel ko ëllëg. ñun noonu la ñuy bëree yaakaar ne pour mu war ñoo teral ëllëg parce que suñuy yaay ñun lañ yaakaar suñuy mbokk suñuy famille ndax góor bu juddu rek am nga am nañu yaakaar ci yow. Mm-hmm. Eh, dañuy ñaan nag suñu yaakaar gi borom bi mottali lépp mooy làmb bi ñu nekk dañ ci bëgg a dem au sommet bëri ci ay combat bari am ci li ci gaay am pour mën cee teral suñuy waajur ak képp ku ñu yàlla boole. mais boobaag léegi yan adversaire lañ lay proposer. parce que man am na ci yoo xamante dégg naa mais xam naa ne li ma ci dégg ëpp na loolu yan adversaire la lay proposé moment bi léegi yow kan ñan nga dégg. man. Mhm. Euh, dégg naa Seck mhm. dégg naa Agogo mi fa woon toog. Mhm. ñaar yooyu di ko. waaw Agogo suñ combat gars yi bëgg nañ ko. posé nañ ko sax si suñu. lamb affaire mais mais Agogo dafa bëre kii di euh, Baye Ma Ndiaye daan ko. nga bëre am defet la moo tax ñu boole leen ñaar. waaw lamb lamb du ndam ak xam moom mooy loo xamante xëy na mën nga daanu bëre ku gën a yéeg sax ki la daan. Mhm. mën nga daanu bëre ki gën a suufe ki la daan chance la rek xëy na peut-être yàlla moo ñu may chance. mais Agogo moo ci làmb ba moom defe naa ne lu lu lu baax sa carrière donte ci defet la jógee. Mhm. làmb loola làmb moom li ñu naan du ab maas ab dabante la quoi ñun ñëpp ay xale lañ xëy na li tax Agogo bëgg bëreek ñun tamit peut-être am na lu nekk ci ñun xëy na nag du lu ñuy bàkkoo du dara mais am na loo xam ne def nañ ko si làmb. bañ ràññee ñu kon nañ ciy sant yàlla di ci sax nag di bëgg affaire yi jëm ci kanam suñ combat gars yi bëgg nañ ko et eh, man pare naa ba pare man damaa war a bëre sax le 27 novembre damay bëri mais loolu du yàq ak loolu dara. man bu ñu le 27 novembre man ak Dorma ñoo war a bëri xam nga dañoo waroon bëri le 4 août. làmb Habib bi. corona bi ñëw puus ko. léegi joxaat nañu date vingt 27 mais combat bi agogo bi kooku bu ñëwee day gën a agogo rek. dañ koy jël rek xaari leen xam naa ne dina la seetaan dina la seetaan lan ngay wax agogo eh, li ma koy wax mooy mbër waaw yaa ngi dégg maa ngi ni fii maa yooyu ñoo fi waroon jàmmaarloo yàlla def na ñëw kon nag message bi maa ngi la koy lancé mooy làmbaji ji bu mu tagee ci yow ñun pare nañ eh, heure bu la neex jëlal eh, buñ bëree ak yow borom bi suturaal ñu may ñu ndam bi ma koy bi ma koy contacter nee na ma euh, benn booyam woo na ko na ko gis nañu monté sa photo ak photo ma ne ko est-ce que pare nga pour bëre ak moom mënuma waaw. waaw bi ma koy wax ne ko ñëwal mënuma yow da ngaa bëgg combat bi taxaw ma ne ko du bëgg moom mënuma pare naa pour bëre moom. Mhm. ba jox ma accordam waaye jaam pexe yàlla dogalam. ba tax na nag euh, maa ngi lancé appel képp kuy promoteur wala képp koo xam da nga yëngu ci làmb làmb ji nekk na làmb joo ni ñoom ñaari mbër yëpp bëgg nañ ko te amateur aussi bëgg nañ ko ñi nga xam te dañuy dund làmb jàpp nañ ne combat bu neex la ndax bu ñu bëree kenn ki mën na cee jaayal soqaliku keneen ki toogaat liggéeyaat dafa waat bu baax a baax waaw mooy li nga wax rek combat moom gars yi ñu ko bëggee rek. dañ ko ñaan rek borom bi mu sotteeg jàmm quoi ñun ay xale lañ ñu ngi. mais su weesoo su weesoo agogo. Mhm. ñan ñan ñeneen ñan nga gis ñoo xamante ni eh, bu weesoo agogo parce que tamit làmb moom mooy loo xamante ne coow la. Mhm. munoo fee daan ñëpp munoo fee bërëg ñëpp. da ngay daan ñii ba fii ñii jëli ci ñeneen bu dul agogo man am naa ay adversaire yoo xamante ne ñu ngi si làmb ji. ba ci ba ci mag ñi sax. kii dama koo fàtte booy bi réparé moom mi wax ne keroog dama koo dalal fii mënuma booy yooyu yëpp maa leen mën. defe naa ni seetaan nga ko. <laughs> waaw réparé moo la mën. moo mën Liss Ndiago moo mën kii Ardo nee yéen ñeent ñett ñëpp bu leen ku ci nekk mu daan ko jàll ci kàcce des. waaw xoolee nag ñett ñooñu mu lim ñëpp yàlla def na moom moo bëgg bëreeg ñooñu mais ñooñu bëgguñu bëreeg moom. ñun mi mu lim ñëpp yow bëggoo bëri réparé. non amaluma benn rendement. mbër la champion la mais man tamit maa ngi seet leen war na la ko si biir wax mooy mbër boo gis bëgg na bëre ku ko gën a kawe xëy na moom ni mu bëggee bëre ñun ñun noonu lañ bëggee bëre ñeneen làmm moo demee noonu coow la rek xëy na moom day wax pour bëgg bëre ñun waaye ñun tamit suñu vision mu ngi ci feneen fu bokkut ak moom quoi. fan la sa fu ko gën a kawe rek. waaw mooy comme fan. boo fi nekkee di waa Onde le amul combat. moo fi nekk naan moom mooy. buntu bi mooy euh, daaw jéeg la fi daan du keroog moo tax kenn <laughs> nañ daaw on le fou amul ñu bëri maa moom moo gën mu bàyyi télé dox. di toog rek. on daa a ñëw ñu neexal ko ba mu neex. ay adversaire lañ moo fi nekk moom mooy buntu booy booy bu tër nañ ko ko jox na mooy dégg naa dégg naa dégg naa mooy dof buy faj nit yi de. ah dof buy faj nit ñi kooku ay moromu dofam lay faj dof buy faj nit amul fenn. gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo gannaaw moom doog moo fi nekk dañuy waxtaan ak moom ci carrière mais sa carrière ak entraînement yi moment bi gis nañu làmb tëjoon na daanaka sax tijji na. Mm-hmm. mais naka ngay gérer kay entraînement bi parce que fan yi gis nañ làmb amul. Mm-hmm. bay ñee ñenn ñaa ngi pause ñee ngi entraîné da nga pause wala yow. ci la non man moom du ma pause man naturellement entraînement dafa bokk si man. man koñ ba sax ñëpp loolu lañ dañ mën a noppalu làmb ji corona bi tëj na nii man leen déedéet. Demba maa ngi koy nuyu au passage ak ak kii ak tumaani samay gannaaw lañ dañ maa sonal su ma leen rombee dañ ma naan noppalul noppalul. man leen aw noppalukaay parce que entraînement bi gëm naa ne moom may teral ëllëg. Mm-hmm. Eh, moo tax mënu ma see noppalu ni ngay xëy di ibbi sa place di xaar client bu ñëw nga wat ko noonu laay xëy di uti doole xam ne sama doole ji may wut ëllëg moom moom may teral yaakaaruma ci dara lul sama kàttan di ñaan borom bi may ma wér ak wérle ba li ma bëgg lépp suñ borom sottil ko ak jàmm ñu ngi entraîné bu baax ndax ñun ay xale lañ eh, du làmb rek moo tax ñuy entraîné. daa dem ba connecté wu ci ñun ni ngay xëyee boo ndékkiwul di am problème. Mm-hmm. ñun bu ñu xëyee entraîné wuñ noonu lay def si ñun dañuy am problème duñ nekk en l'aise parce que mooy suñu passion quoi. boobu mu daw de entraînement rek. Mm-hmm. waaw Père Max da koy wax mbër bu du préparé day pare mm-hmm. waaw te moom xam suñu baal dañu ñun ci keppaaram lañu yaroo moo tax bëgguñu saa yu ñu gisee sax di am ñeewental ci ñun liñ bëgg mooy buñ gisee rek xelam di dal moo tax duñ bàyyi. mais naka ngeen nekkee Lamsa parce que Lamsa gis nañ fa euh, génération bu nekk am na fa tey jii écurie boo dem bu nekk soo fa génnee mbër soo duggee Lamsa génnee fa ko mu mën a bëri naka ngeen ni naka ngeen ni naka ngeen ni nekkee yéen seen biir génération bu nekk am fa ñii ñii ñii ngi fayeeku ay nange millions ñii ngi fayeeku cinq cent mille ñii ngi fayeeku cent mille mais dañoo gis seen ànd bi dafa rafet lan moo waral lool. waaw dara loolu ci mag ñi la njëkkee rek parce que écurie Lamsaar mooy loo xamante ne maanaam mën naa du écurie loolu kër la ak famille. Mm-hmm. parce que boo xoolee ñëpp ni ñuy dundee mooy comme ñi bokk ndey ak baay. Eh, di jaale suñu per per Aline Diop suñu baay boobu nga xamante ne lu écurie bi am ak écurie fu mu mën a toll yàlla ak jëmmam la moo ci sonn moo ci taay moo ciy dox moo ciy wax ba ci entraînement chaque jour moom moo ñu fay jiitu. lañ ko rob ci bàmmeelam moo tax ant écurie bi ñu namm ko mais lundi ba ajuma chaque trois heures pile mi ci kaw xeer bi toog di ñu xaar père Max aussi noonu père Moussa boxeur aussi noonu. Père Cheikh Niang DG bi tamit noonu ñuy sonn ci écurie bi écurie la boo xamante ne mag ñeeg rakk ak xale yi mënoo leen xàmmee bu ñu nekkee seen biir leen la ñuy xàmmee mooy dañoo tuddee woon sa jëmba ak Demba Diop mooy grand yi ñooy Essa ñooy Demba ñun ñooy Essa Diomba mooy Iba Mar. Ah, Essa Saat Demba Diop ak Iba waaw noonu lañ doon def dañuy jékki-jékki dangay ñëw soo ngemboo def ni nga gis ñu ne la eh. waaye dégage waaye demal fële Ibamar léegi ñun waa Ibamar tamit bu ay ngaax a ñëwee dañ leen di sànni acca alsaan jigo dañ leen naan dem leen fële yéen ay ngaax ngeen ne leen di dalal eh, ñoom ñun ñëpp ay frère lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk liñ bëgg eh, li ci des ay ay nees ay fëgala ay super étoile ñoo ñi ma fi ah. limal ñëpp dañoo daw waaw ay neko réel ah ay tiijaan fay Tidiane Faye surtout moom moom mu ngi def geste bu rafet ci écurie bi mhm, dama booy buy bëree mu mu bàyyi léppam ñëw ànd la bi sax képp ku am combat billahi da ciy xar tànk tubéyam entraînement contact physique lépp moo ñu ko yor di ci reyante billahi dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla fay xolam écurie bi munoo xàmmee laa la kii mooy kii kii mooy kii booy tamit noonu ba ci mafia tarkindaay ñun ñëpp benn eh, ñun yàlla moo ñu boole ñuy ante yàlla tax bëggante yéene wante lépp lu nekk ci yow rek mu sa morom lu say lu sa morom yéene boppam rek moom yéen na la lan nga ma wax ci combat Siteu Papa Sow bi parce que combat bi yàgg na komba bi metti na. Mm-hmm. Euh, am ngeen combat boo xamante ni nii Papa Sow. Mm. Papa Sow jóge Fass ñoo ba écrémé ngeen dem jël ko ñu waxati euh, Mama Lamine euh, dem jëlee Garga 2 Garga 2 nekk ci Papa Sow naka ngeen waajee seen diggante yéen ak ñoom. waaw mee dara combat moom li ñu naan daa dëgër bopp surtout surtout surtout Papa Sow Siteu dëgër est-ce que du mystique bu bari bi tamit. non du mystique de mag ngi nee nañ daa dëgër bopp ni mu ni ni matu mbëtt. matu mbëtt bu mattee ni muy dëgëree bopp tëbu dañ. combat yi moo raw loolu tagg a yomb <laughs> waaw mais nag lépp lu ci mënta ama ah, ñu ngi ñaan borom bi mu sottil ka ak jàmm ñu bëri am ci ndam parce que sonn na ci dañ na ci coono bu ne te moom mooy xale moo nekk ci yoon. Eh, lu mën a am daal di nga am ndam bu soobee yàlla mu ne na tëgg bu bees bi rocc si def ci Siteu waaw loolu yëpp génnoon na <laughs> ak ay mbaraj mbaraj mbaraj mbaraj wax ji dafa bari yooyu yëpp génne nañ ko mais bi ngeen déggee Papa Sow mhm. euh, ne euh, li mu li mu doon gën a yaakaar li mu doon gën a yaakaar ci yéen gisu ko mhm. ne maanaam Siteu entraîné wul Siteu liggéeyul ñu ci bay waa waa jàmm gën ñu ci bay dañoo mer ci wax jooju naan ne li mu doon gën a yaakaar maanaam da koo xeeb dafa kontaan ci ni mu gisee Siteu moom. waaw léegi nag ñi ci ñi ci mer mooy ñi xam ne Siteu mi ngi daj coono dëgg ñoo ciy mer mais ñi xamul sori dañ naan Papa Sow wax dëgg la ñun xam nañ ne li mu wax teg ko fenn lu dul bataay. mais est-ce que état ah Siteu di xale di liggéey Papa di mag Papa moom moo mën a xool Siteu ba di ko xeeb Siteu xooloo ko ba jéggi ko moom muy xool Siteu ba di ko xeeb loolu xam nga ne ndax say mbokk la parce que yow mënoo ma magee dix ans su may nelaw sax yow ngay entraîné waroo maa mën. asuma ah, laa nag may liggéey. non mais bu la ko teg foofu nag. noo explication la rek parce que sport mm-hmm. xale la. Mm-hmm. nañu waxante dëgg Papa mag bu sérieux la. day entraîné téye na boppam. loolu yëpp dëgg la ah ba pare dafa mais billaay walaay ku la magee dix ans buy entraîné demal nelaw boo yoree jàmbaaru xale ak jommu xale barki arxuraan foo ko jàpp da nga koy lekk waxtuma laa nag ngay liggéey. ah kon nag on di la vérité Papa bi muy wax loolu da doon. mais fi mu toll nii daal am nga yaakaar ci état de forme Siteu ak xel mu dal ni nga koy gisee moment bi. non ñun billaay bu ñu bëri woon làmb ji sax si lay ëpp moo ëpp xel mu dal bi mu naan Siteu newul ci dara ñun booboo ñu ëppal xel mu dal. parce que nii nii fomm nañ koo mbaa bi dañuy recommencer waat te loolu day gën a métti ci moom ndax moom mag la ñun ñu ay xale. làmb lu mu gën a diire lu mu gën di yàgg suñu avant avantage ñun ñaar ñëpp mais ci côté doole suñu avantage la ndax ñun ñuy xëy di yokk par point moom muy xëy di wàññi parce que nit saa yoo yeewoo rek jàppal ne bu dee mag nga am na lu yokk ci yow. say at yokku na am na lu wàññi ci yow. mbaa da nga bëgg a wax li ñu naan euh, mag rek feebar la. moom maa la wax mag rek feebar ndax euh, coono la. ni lay demee ci jàmmaarloo mais ñu ngi may signaler ne ma temps bi li des bariwul soo amoon kàddu yu mujj ak euh, nga sant gërëm. Mhm. ñu tàggatoo. Eh, kàddu yu muy mujj mooy di masawu rek dëkk bi fi mu toll mooy wàllu mbënn beeg yooyu noonu du wax sax mbas mi ndax mbas amu fi mais mbënn mi laay wax mooy ndox mi sonal nañu surtout ñun ñi dëkkee ci banlieue bi di wax autorités yi gaan dañ ñëw jàppale ñu utal ñu solution totale gis nañ fanee passé bi ndox mi sonalee Macky Sall mu yebal mooy ministre de l'intérieur xaw ma waaw ñun soxlawuñu woon kooku ñun liñ soxla woon mooy moom mu ñëwal boppam xam tempérament bi xam dëkk bi fi mu toll xam maanaam nit ñi fitna yi ñuy dund mhm. coono yi ñuy dund ñun loolu moo ñu gënaloon fuuf mu yebal ministre am boobu kooku wàllu justice la xam wàllu tëj ak tijji kooku xamul wàllu ndox ndax musul dëkk fuy taa Macky Sall moom xam na bu baax lan mooy coono àdduna ndax dunu ko ndax ñun fekkee waaye dégg nañ ne moom fii la juddoo nu tuddee sax Fatick. Mm. yaayam foofu la nekkoon di jaay ne dégg nañ ko. Mm. kon moom xam na coono àdduna quoi moom lañ bëggoon mu wàcc sur le terrain yee gis jafe-jafe yi ak coono yi ak doomu aadama yi li ñuy daj ak yaay li ñuy daj seen biir kër yi. mais moom ñëwul mu yónnee amul benn problème mais na fexee xar tànk tuubéem defaral ñu loolu mairie yi mu fa teg yi nañ ñëw xool ni ñuy liggéeyee mu organiser waat liggéey bi ba ñooñu mën ñu defaral liñ bëgg parce que tamit ñun ñëpp benn lañ mairie bi mënul def yëpp mais na jéem ñun ñu jéem ndax li gën a neex mooy boo amee jeunesse boo xamante ne taa dañoo tayalul dañuy xëy di kër kërti kër ñooñu neex nañoo dimbali nee nañ kii nelaw a neexut a dimbali waaye kuy jóg di dox neex naa jàppale. Mm-hmm. Eh, nañu jàppale dimbali ndil ñu ndox mi di sant waa jàmm ngeen sama mbokk Haalpulaar yi nag sama sañse bu rafet bi ma sañse nii damaa bëgg nga jël ko nag. Ah, te laal moom <laughs> benn nijaay bu tudd Pape Fall ah. nekk fa jàmm gën di ñëw. Mm-hmm. Eh, atelier mooy gaynde faat Fatma Couture. Mm-hmm. Eh, di ko ñaanala ah, li ma defal nii yàlla na doon ay teraanga ay teraanga ndax lii dafa rëy. danga may wax émission bi rek démb woo ma ne ma sa yére bi ma la doon ñawal pare na ma ne kon lii waxatu bu ànd ak gestu la suba su may dem émission moom laay sol di ko ñaanal di wax gars yi nañ ñëw ci moom parce que lii rafet na trop macha allah eh, di sant tamit Bawaas moom ma génn fii ci bag bag yi nga xamante ne. ñooy wax ak chaque jour ba géwél a yem. waaw day xaw a jàll Bawaas mooy <laughs> daas sa borom daal yi baax di sant booy may àndal yëpp sa mbokk xalpulaar yi ah ñoom Alsan ñoom Alseeni ñoom Isma Abuya Seex sant sama nijaay sama benn nijaay pro la <laughs> paam di ko wax nag mu jàpp si affaire yi gaan xam rek affaire yi daal dëgg ak pro bi indi añ bi mooy Samir <laughs> ak Babacar sama ñaari pro yooyu ñooñu kenn du ñoom eh, di sant waa jàmm ngi ñëpp di sant ay Pape ay Seck ah, di sant Demba mu àndal eh, sant am ay Ibrobo ah, waa koñ bi Pagay moom may laafa bi ne mbër teg ko ci kon nag naay sant ñëpp bilaay baawuñ kenn bu buñ limee dañuy juum di sant suñuy jigéen yi jaar di sant sama benn xarit bu nekk américain ah. Matar day sonn ci man xaalis bu bëri la may may sama beneen frère tamit bu tudd Ibou Ndar Antisco Père Doudou Papa Samba ah, Ablaye Sambo eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama mag bu jigéen bu nekk Belgique di sant tamit sama nijaay boo xamante ne mi ngi ba Belgique di sonn si ñun barki alxuraan luñ bëgg def ñu koy defar ci luñ nekk moom mu ngi ci ñu naan ko Samba ah, ngaari Belgique di la souhaité waaw jàmm ci yow. di sant waa àdduna yëpp képp kuy bëggee caat ak foo mënta nekk di la sant di la gërëm di wax 100 pour cent jaamu gën bi tey dañuy fubalaat ñoo waa Malika yi invité nañ la nga ñëw ñu dóoral leen dóor nañu waa parcelles yi keroog tey dañoo war a bàccaat bàcc waa Malika <laughs> waaw gis ngeen gis nga loolu phénomène la boo xamante ni mbër yi football ak waa parcelles gañe leen te yéen a ngi jëm Malika ah que rek que le euh, maa ngi nuyu Sukista kooku xale la boo xamante ni sama seer la sama lépp la bañ na ko kaw tijji na salon feete Cambérène Sukista di ko ñaanal yàlla na ko yàlla ful yokk ko ba ñëpp yëg ko mu nekk nag salon bu mag boo xamante ni ñun ñëpp dañu fay dem wasaare yëpp balaa ñuy ñëw wala mbër bu ñu am mu ñëw fa ñu maquillé ko poudre ko pédicure manicure yooyu yëpp da ci baax waaye duñ ko Ousmane Sonko ndax kenn duñu maase di wax na nag le 10 mooy sama anniversaire cadeau na ñëw waaw wasaare nag laa koy njëkkee baabu ci kaw ba suuf basak Fatima ñëpp seen jaww ngeexee waaye anniversaire la du ci wét man sama doomu ndey sama lonko muy màgget moom tamit mooy boobam la 10 kàggu puus na boppam ba la 15 waaye yow tamit sa bas ñaanal yàlla nag su ma amee xam naa ni nga am su ma amul bu yeboo nga muñ <laughs> te xam ne doo laal daal <laughs> di leen jox dig daje beneen yoon ci jàmmaa la kàggu aadama maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax caat nuyu naa la di la jaajëfal bu baax. waaw jaajëf wasaare ca kaw ca kanam ci lu baax. amiin eh, kontaan nañ bu baax si yéen gis nañ liggéey bi ngeen def ci làmb rafet na lool waaw wasaare for life. jaajëf jërë ngeen jëf ba beneen yoon.